li fàttaliku tey woote bu sell bu maam mu Limaamu Mahdi Laay téeméer ak fanweer ak benn ci ren jile tey ak ëllëg dimanche ji lay doon ndajeeg yëngu yu bari ci wàllu diine daanu ko ci amal RFM incha allah du ci ànd ak yéen ñetti nit yu nu teg loxo ci Sédhiou la xewee jëm ci wàllu jalgati ñeel njiwam gerte baykat yi fukk ak juróomi tonnes yu nu jalgati détourné jaayab commerçant plan directeur d'assainissement ñeel wàllu cetal kon ngir Ziguinchor juróom fukki milliards ci dem ministre d'État Abdoulaye Baldé maire ab ci gox yenn yenn yu ndox ma euh, daal di teew ci taw yu njëkk ca Ziguinchor euh, déet déet ngir fitna ngir Sénégal ak lu koy nasaxal réew mi moo tax a jóg waa conseil national de la jeunesse ñu ngay woo Abdoulaye Wade ci mu fexe tekki liyaar gi ko askan wi yónnee keroog 23 ak 27 juin ci opposition bi di wàccoog suffrage bëgg-bëgg ak tànnee fa askan wi maître Ousmane Ngom moom la mu weddi mooy xibaar bi jëm ci mercenaires yu ñëw Sénégal euh, du lu xel nangu ca sax mën na nasaxal doomi réew yi nga xamante ni ñoo bawoo ca bitim réew cay dund fii di ay étranger ñaareelu xaaju xibaar yi sport dina ci bokk ak Cheikh Tidiane Diagne xalam Dieynaba Seydou Ba ñu tëjee yéenekaay yi ci machine bi. Assane Gueye. woote maam Limaamu Mahdi lay tey ak ëllëg ñuy amal fàttaliku gi téeméereel bi yoon ak fanweer ak benn yëngu yu bari ñu koy amal ci wàllu diine ca Yoff Ngor Cambérène Soleil woote geeg El Hadji Ndiogou Diène ajibu daay laay ñëw leen wuyu wooteeb yàlla di kàddu yu njëkk yu limaamu lay yëkkati woon ci bi mu tàmbalee wooteem bi moom moomu toll woon jamono jooju ci ñeent fukki at wax ne moom yonent la yàlla moo ko yónni te mooy Mahdi bi nga xam te ne moom la jul ci àdduna bi doon xaar nit ñu bëri bokkuñu sax ay jegenaareem gëmuñu woon lu ni mel ndax dañoo gisoon ne rabu lébu yi moo ko jàpp ñeneen ñi gis ne naqaru xol la amee gannaaw bi yaayam génnee àdduna lu jamono di dox ay kàngam lislaam yu nekk fii ci Sénégal ak tamit ci Afrique sowu jant di dem foofu la ca Yoff gannaaw bi ñu déggee wooteem mbooloo mi takku ba nga xamante ni tubaab yi fi nekkoon jamono jooju tàmbali di tiit ak tamit di moytu Limaamu Laay si leen ko nag jéemee yóbboo fu sori Sénégal waaye loolu bu jot ant antu liñ mujjee mooy dañ koy yóbbu ca Île de nga xamante ne am na fa ñetti weer moom ak ki nga xamante ne fu mu nekk ñoom ñaar ñooy nekk di Tafsir Abdoulaye Diallo gannaaw bi mu ñibbisee nag Limaamu Laay di doomu maam Alassane Thiaw ak maam Coumba ngir lislaam jëm ca kanam ak tamit njub maamu Laay mi ngi wàcc liggéey ci atum 1909 jamono joj nag mi ngi toll woon ci juróom-benn fukki ak juróom-benn ki ko wuutu mooy doomam bii di Seydina Issa Ruuxu Laay moom moomu nag wëyal liggéey bi nga xam ni moom la bàyyam tàmbali woon di liggéey boo xam te ni tey jii ki koy wëyal mooy xalifa général des layeen di Seydina Abdoulaye Thiaw Laye jërëjëf El Hadj Ndiogou Diène incha allah RFM ci xibaaru bëccëg gi yëpp daanu ànd ak yéen ci appel bu maam Limaamu Mahdi lay dimanche ji ñu fas yéene ndoor ak yéen ca Yoff Ngor Cambérène leneen ne xibaar ñeel Sédhiou ñett ñu nu fa teg loxo ci arrondissement Bona kii Bounkiling lan leen toppee mooy jalgati fukk ak juróomi tonn njóom gerte ñeel béykat yi ñu jaay ko commerçant Bakary Konte ak juróom nekk ay jiw yoo xamante ne gerte la loolu nag ci communauté rurale bu Bonna lañ ko détourné ñu ko jël nag Souleymane Sané nekk représentant chef de village Sall Dieng nekk commissaire bi ak Abdou Karim bi nekk porte parole commission bi ñoom nag tey ci ajuma bi lañ leen arrêté ci brigade mixte bu Bunkili dañuy jël trois cent sacs euh, gerte daal di koy jaay benn commerçant nekk xabaan faal ko nag dëkkul si région bi loolu nag depuis mu am si euh, la gis ni euh, semence yi commencé ci béy liggéeykat yi ñoom nag di ko ñaawlu ñi dem ci seen président bi nekk syndicat jàppandoo Cheikh Sadibou Diédhiou di ne kooku na def tu jox leen nag ay semence kooku nag ci la wàcc ci comité bi daal di def ay vérification ci lañ gis nag am na loo xamante ne ci ay semence manqué na di mat ci quinze tonnes ci la daal di dem ci brigade bu gendarmerie bu Bounkiling daal di def benn plainte loolu nag depuis ñu commencé l'enquête bi ci la ñuy jàpp ay ñetti nit fu mu nekk nii fu mu nekk nii sax enquête bi ñu ngi koy wéyal détournement yi nag ci département bu Bounkiling bëri ndaxte bu ñu fàttaliku at 2008 bi amoon na euh, détournement boo xamante ne amoon na fii ba ñu dugal fi euh, sous préfet bi ñu daal koy tuumal loolu nag depuis ñu am dañ ko arrêté daal koy génnee si fonction am da maanaam daal koy dàkk vice bi nag kooku tamit ñi daal koy arrêté ci at 2009 bi brigade euh, Bunkilim ba léegi ñi daal di jàpp 40 tonnes semence ko tam gerte la ci benn transporteur loolu nag depuis ñu jàpp ko kooku nag ci ay waxam mu ne waa ministère de l' ñoo ko yónni boobu nag Fatou Gueye Sarr moo nekkoon ministre de l'agriculture wante nag nekk na loo xamante ne comme détournement yi bëri na ndaw yi nekk fii ci diwaan bi daal di monter ay commité de vigilance pour daal ñu mën a euh, éviter yeneen détournement semence fii si diwaan bi Bakary Konté Sédhiou jërëjëf Bakar yi ñu des bët Saloum Sénégal Ziguinchor waxtaanee nasar gu ñu fa am di plan directeur d' assainissement gi jëm ci kon setal diwaan gi juróom fukki milliards di ca dem loole ndorteel ak euh, njeextalu at mi la xaaj bu njëkk ba ministre d' état Abdoulaye Balde maire Ziguinchor ko xamle gannaaw yenn ci gox yi mu demoon nemmiku ñu déglu ko moom Abdoulaye Balde ak Abdoulaye Sambou. mairie bi am na programme bu rëy boo xam ne moom ak gouvernement bi la. donc defoon nañ déjà plan directeur d'assainissement bu Ziguinchor nga xam ne waa banque africaine de développement BAD ñoom ñoo financé première phase mooy phase d'étude. ñu def ci un million de dollars phase boobu pare na def nañu étude yëpp approuvé nañu plan yi. donc léegi ñu ngi si la chaîne de financement déjà def nañu ay atelier yu ak technicien wu banque mondiale bi ak banque africaine de développement bi ak yeneen technicien yoo xam ne mooy cabinet allemand boo xam ne moo defal euh, étude plan directeur d' benn cabinet sénégalais. donc restitué nañu lépp ñu ngi si phase recherche de financement te am nañu yaakaar ne que phase prioritaire bi dina door du yàgg donc dinañ door d' abord si quartier yu mel ni fii ci Lindiane mais aussi quartier Boucotte Nord Sandiaba ak Budodi donc yooyu la ñu moo nekk phase prioritaire bi parce que programme bu am importance nga xam ne financement milliards de francs CFA la donc bu soobee yàlla dinañ ko mobiliser d'abord dinañ mobiliser d'abord dans une première phase vingt cinq milliards yeneen milliards yi à l'horizon deux mille quatorze nañ en tout cas def assainissement bu ville mais xam nga ni aussi que dans le cadre du PRECOL si deux milliard dañ ko jël def ko si assainissement quartier yu mel ni Belfort ak yeneen i quartier ñu ngi koy def ay canalisation yu ba euh, bi donc foofu yëpp ñu ngi koy def ay canalisation loolu dinañ ko wéyal c'est vrai problème dafa bare mënuñu jël saafaral yëpp solution yi si benn at mais ñu ngi si yoon bi donc dinañ yegg si quartier yëpp bu ko defee vraiment waa Ziguinchor euh, bu tawee ñu mën a en tout nelaw si jàmm ministre d'État Abdoulaye Baldé maire Ziguinchor transporteur en commun yi ñoom la ñu bëggatul nangu mooy seen wota yu ñuy may ca ñu daal di ko jëndee seen alal ñi dañoo leb ca pay ga yeggagul kon loolee daal façon ci ne taxaw bu baax ndax ñoom saa su ne ñooy doon ñi aawlu ñi yàqule ci manifestation yooyee secretaire général bu syndicat transporteur routier bootu ci CNTS Alassane Ndoye yi kenn ku nekk gis nga li xew leen di man nag bi muy xew maa ngi dakaar bi ma nekkee Dakar nag bi affaire yi demee ba nga xamante ni yàlla dogal na mbir yi dal na dama jël suma oto mënuma jaar fenn si ri benn rii ba jàll ndax oto yu màgget yi jël nañ leen daaneel si tali bi jël nañu arekaale yi daaneel si tali bi jël nañu marchandise yi newoon si booru tali bi daaneel si tali bi taal pëne ma gis ne nag réew mi nag yàlla dogal na nag ñëpp ko bokk te kenn koo si gis am na si ay responsabilité yàlla dogal nag féetale ma si transport te ma fa fonk ko dëggam ko moo tax nag bi ma gisee loolu ma dem jël sumay matuwaay ut suma cent cinquante personnes deux ans ou ñun ñoo nekk ci tali bi lépp loo xamante ni tegoon nañ ko ci tali bi luy Grand Dakar Castor Bourguiba Rédis Alassane Doye moo ko dindi ak équipe am ba ku xëy mën a am foo jaar. ñu nangu nag képp ku mere ci àll ba denc sa alal ci sa nekk ci sa kër ñëw ci tali bi yàq suñuy jëfandukaay nangu suñuy alal loolu nag laa ni ñun dootuñu ko may kenn. parce que oto yi nga xamante ni bi dañ ko leb bor yi matagul ay nit taxaw ci tali bi di ko kasete di yàq suñu matériel di nangu suñuy alal. loolu laa ni man Alassane Ndoye jiite syndicat transport bu routier responsabilité yooyu maa ko jël lëndi loolu nag matuwaay bi ñu si jël nag mooy saa yoo xamante ne bii ay nit jógati nañu pour yàq suñu alal man Alassane yi may dinaa ut suma équipe pour défendre loolu kenn du ko yàq. Alassane Ndoye bu syndicat transporteur routier bu Sénégal waa conseil national de la jeunesse ñoom fitna googee la bëgg mu dak ci réew mi nan fexe ba bañ yàq toj sunum réew euh, ci janoog taskatu xibaar yi conseil national de la jeunesse ci njiital maître Aliou Sow sàkku ci Abdoulaye Wade mu fexee tekki la ko ndaw ñu yónnee ne message keroog 23 ak 27 juin opposition bi dinañuy wàccoo respecté askan week tànneef ak bëgg-bëggam Jo Maroon bàyyi leen violence bu leen yàq suñu Sénégal Sénégal ñun ñëpp a ko moom ñoo ko bokk. conseil national de la jeunesse ne àndul mukk ak fitna loolu tax sax muy ñaax askan wi ñu taxaw ci loolu metre Aliou Sow. mu njiitu conseil national de la jeunesse. li xew Sénégal le juin ak le 27 juin. nekk na combat pour démocratie. waaye si biir combat pour démocratie. am na ay mbir yoo xam ne rax na si te ñun ñëpp ñu ñaawlu ko parce que gis nañ si ay actes de violence yoo xam ne jaru ko fii. te looloo tax ñun comme ndaw ñi ñoo génnoon te ñun ñu ilif ndaw ñi nekk conseil national de la jeunesse ñu yaakaar ni war nañ mën a lancer benn mouvement pour ne non à la violence ne détruisons pas notre pays. jàkkaarloog taskatu xibaar yi conseil national de la jeunesse woo ñi yëngu ci mbirum politique ñu jiital intéret askan wi ñu ñaax njiitu réew mi mu jàngat bu baax a baax. li xew ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin bi weesu. njiitu réew mi dañ koy nee mu déglu baatu askan wi xëy na am na ay conseils yoo xam ne dinañ toog nee ko non ñii waxuñu dëgg mais na déglu bu baax message biñ ko lancé le 23 juin et le 27 juin mu xam na ni tamit ndaw ñi nga xam ne ne ñoom ñoo ko faloon jox ko confiance wax nañ mer nañ foog mu jéem xool lan moo tax lan moo waral loolu waxtaan ak ndaw ñi waxtaan ak ndaw ñi xëy na dina xam lii yëpp lan moo ko waral. opposition bi ak waa société civile ñoom faw ñoom it ñu daal di respecter suffrage des sénégalais conseil national de la jeunesse yokk ci ne dina amal am doxum nemeeku dajeeg ndaw ñi kilifa diine yi ak ñi yëngu ci mbirum politique pour xamal askan wi ne démocratie warul tax ngay yàq alalu nit ñi. Jo Maron ministre intérieur ministre d'État Ousmane Ngom moom weddi na xibaar yi jëm ci mercenaires yu nu indi fii ci Sénégal du yu wér ca sax ku may wul safaan lay jur yooye xibaar jëm ci nasax nasaxal étranger yi dund ci ñun looloo waral mu daal di dàq boobee xibaar ministre d'État Ousmane Ngom ak Charlotte Lalane. ñu naan dafa am ay mercenaires wala ay jàmbur yu jege ci bitim réew. ñu mat ñeenti téeméer ñu indi leen fi. journal yi sax dañ ci juyeloo ñi ko wax. am na journal bu ni fanweer lañu am bu ni euh, téeméer ak juróom fukk lañu. xam naa ni balay fileeg gannaaw suba danañ ni sax ay extraterrestre lañu yu jógee planète Mars wala feneen ñoo ñëw pour euh, euh, assurer sécurité sénégalais kon nag lu ne danañ ko dégg fii ci Sénégal mais nag lii lu garaaw la parce que. su fekkee ni da nga bëgg combattre sa adversaire rek ba ngay inventé lu mel ni te ku ne xam na ni Sénégal am na armée républicaine am na gendarmerie bu compétente am na police bu compétente boo xam ni ñoom dañoo mës a assurer sécurité réew mi dañoo assurer sécurité réew mi ba nga xam ni ci bitim réew Nations Unies dafa wóolu Sénégal ba de bés bu na day bind président de la République ñuy dem ba di wàllu ji ay réew yu nekk ci coono yu nekk ci àdduna bi yëpp waaw ku ñuy woo ngay dem di wàllu ji ay réew ka xanaa nga mën a wàllu sa réew ku bëgg convaincre sénégalais yi doo leen tiital kan moo fi gis benn mercenaire te loolu itam lu dangereux la itam pour ñi nga xam ni ñu ngi leen di tudd di tudd seen nationalité sénégalais yi mën nañ leen xoolee beneen bët mais waa Sénégal ya nekk ci réew yooyu itam mën nañu caa jóge waa réew yooyu song leen indil leen musiba wala indi leen jéya kon nag kuy wax war nga seet bu baax li ngay wax RFM bitim réew. dana koy door ak réew Afrique yi nga xamante ni fasunu yéene topp cour pénal international ci yéeneem rëbb def ak mandat d'arrêt njiital Libye colonel Momar Kadhafi ci weneen wàll ñoom yooyee njiiti Afrique sàkku ci moom fi mu bañ bokk ci urug jàmm gi ngir génne Libye ci crise loole bokk na ci taxawaay ak dogal tukkee ci ndajeem Union africaine ca Malabo Maroc moom euh, wàllu constitution bi ab référendum lañ ca doon amal ay yeesalu ca buur ba namm askan wa nag ñu ca bari nangul ko ko ndax téeméer boo jël daanaka juróom fukk ak ñeent nee nañu waaw ci téeméer boo jël juróom ñett yu bokkoon participer ci loolee eh, ne ay tànneef. ñu ànd ak Cheikh Tidiane Diagne. mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaaru tàggat yaram ñu door ak wàllu basketball ak finale coupe du maire ci góor ñekk jigéen ñi ci samedi lay am foofu foofule ca stadium Marius njaay ci wàllu jigéen ñi diggante Duc lay doon ak bopp. ci wàllu góor ñi AS Douanes moom dënn euh, jongante ak ñii di waa Mermoz jongante yooyu yëpp nag ñu ci xarandi public bu bëri foofu la ci stadium Marius Ndiaye ñu gis ni tam nar naa neex trop jongante yooyu dañ si déglu ki nga xamante ni moom mooy directeur technique national adjoint di Pape Jean Samb ci micro Malal Junior Diagne. incha allah final bu yuy neex la. parce que équipe yi koy joué quand ci jigéen ñi. bopp ak jug. équipe yu war a neex la bien que xam naa ni euh, Duc moo xaw a favori parce que liñ dajal ren yëpp vraiment daf ko daf koy gagné largement mais bopp équipe boo xam ay xale ci nekk liñ ci am yëpp dinañ ko ci a et physique bi aussi seen ko développé si góor ñi Douane Mermoz aussi match bi war a neex la ay match boo xam ni dañoo jaxasoo ñaari équipe yi ay joueurs yi ay xarit lañu dirigeants yi ay xarit lañu euh, presque ñoo bokk fi ñu dëkk moo tax kenn du bañ a perte kenn du nangoo dafa nekk en forme. ba pare ni muy euh, toppatoo quart de temps yi. da koy teg ci yoon. temps yi yëpp deuxième mi-temps vraiment macha allah day day baax. waaye du tere ni ñële aussi Mermoz ay équipe bu xale la. xale yoo xam ne am amuñu dara lu ñu perte. suñu leen gagné ñu ni seen normal te suñu gagné mu baax ci ñoom. donc match bi nar a neex la. wàllu football ak ndorteel ñaar fukkeelu bëccëg bu championnat bu Ligue 1 bu Sénégal ci samedi gi ci wàllu programme ci stade Demba Diop ñeenti waxtu diggante gendarme mi féetee ci place mujj gi ak yaakaar bu Tëngéej lay doon. ñaareelu jongante yi diggante HLM lay doon ak Duc féete si ñaareel place bi boobu lay jamono ci stade municipal bu Mbour Touré Kounda dana dalal ko féete ci bopp raw gàddu gi di waa Union Sportive de Ouakam ñaar fukkeelu bëccëg bu championnat bu Sénégal danañ ko wéyal ci dimanche gi yëf nag ñu nar ko ndar kàpp ci altine gi ñu daal di koy jeexaleek wàllu bëre dóor ak combat gu nar am ci stade Iba Mar ci samedi gi Aziz Ndiaye production moom mooy tëgg combat diggante Sakadior numéro 2 ak Boy Niang numéro 2 Euh, combat yu a neex euh, la ñuy xaar ni bés googule ci ëllëg si nag euh, Serigne Modou Niang moom moo bi yoon ci stade Demba Diop diggante Papa bu Fass lay doon ak Nes bu écurie Lansar mbokk yi ñu leen di jaajëfal foofu la ñuy daal di yemale xibaaru tàggat yaram yi di leen jox daje ba beneen yoon. jërëjëf Cheikh Tidiane ñu yegg si ak soxna Dieynaba Seydou Ba ci wàllu caada gi xalam. bisimilah daleen la jàmm. un homme averti en vaut deux. Ceci est un message de paix. Faisons la paix, non pas la guerre. Réglons nos problèmes dans la tanière. Lima gis Irak bëgguma mu xew suma Sénégal am na lu ñu suñu maam yi Ma nation moom mooy way wi ngeen mu nekk single bu bees bu Carlou di mu génne ko ci jamono ji nga xamante ni fii ci Sénégal ñu ngi rek daal di nemmeeku ne xol yaa ngay jóg manifestation yi bari lool. musicien bi nag mu daal di bëgg kon dalal xel yi waaye tamit woote jàmm euh, ci biir kon woy woowile Carlou D ne faw jàmm daal di am mu daal di koy jaarale ci manation. bu am na leneen dama yaakaar ne rek dañu dañu devoir la pour man devoir la en tant qu'artiste en tant que citoyen pour ñu wax ci li nga xamante ni mu ngi commencé am ci dëkk bi te comme li olof di wax rek luy raam ci ñag bi la jëm je pense que war nañu waxtaan ba juboo ci jàmm.